wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyyatahaa mina ash-shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun assalaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp di nuyu islaam di nuyu bu sell tey ñaan suñuy kàddu fekk leen ci jàmm mu mel ni dañuy dellusiwaat ci suñu jotaay yóbbul ndaw ñi comme niñ ko baaxoo defee ci téere bii di tasawwadu sixaar ma mel ni doon nañoo jël suñu bindu yu jëkk kon suñu bindu tey dañ koy tàmbalee ci bunt bi nga xamee ne dafay jàngale xaaji diine yi moo tax mu ne baabun lii ab bunt la fii aqsaami diini ci xaaju diine yi xaaju diine yi nag bu ko waxee mooy diine dañ koy séddale ñetti xaaj comme ni ko xadis ba indee mooy islaam ak ak imaan ak ixsaan mu ne aqsaamu diini rabbina xaaj wi diine yi suñu borom bi al imaan mooy gëm wa baxdahu ginnaaw ba al islaam mooy islaam ak ixsaan kon xaaj wi diine yi ñetti xaaj ba ci mooy imaan imaan nag mooy jàngale tawxiid mooy ni ñuy wéetalee suñu borom islaam nag mooy jàngale fiq mooy atte yi nga xamee ne nit ki daf koy xam mu jëm ci wàllu jaamu yàlla lépp mu xam niñ koy jëfee loolu mooy islaam ixsaan nag mooy tasawuf mooy sellal gi nit ki di sellal ay jëfam lépp lu muy jëf mu nekk jëf yoo xam te ni yàlla rek moo koy tax a jóg yàlla rek mooy tax ñu jëf ko comme na ko xadis ba indee an ta'budallaha ka annakum taraa in lam takun taraahu fa innahu yaraa na ngay mi ngi lay gis bu dee suñu borom gisul bu dee gisoo suñu borom it yoo xam nga mënul gis suñu borom waaye suñu borom na la wér ne moom mi ngi lay gis kon nag mooy diine ji nga xamee ne moo ëmb lépp nag mooy diine ji nga xam te ni moom la suñu borom di nangu ëllëg yomal xiyaam moom dong mu ne imaanukum seenu gëm yaa ayyuha sixaaru yéen ndaw ñi bi man ci ka nga xam ne lahu ñeel na ko azixaaru ndaw ñi wal kibaaru ak mag ñi mu ne kon nag yéen ndaw ñi seenu gëm ci yàlla mi nga xamee ne moom moom ndaw ñi moom mag ñi an tuuminu mooy ngeen gëm billaahi ci yàlla wal malaayika ak malaayikaami wa kutubi haadi zaliki ak téere aju soobu yu góor ya wa zalika ak aju soobu yu jigéen yi kon da ca njëkk mooy na ngeen gëm yàlla gëm malaayka ya gëm téere yi nga xam ne suñu boom moo ko wàcce ci yonente yi téere yi nga xam te ne ñooy jubal ñu góor ñi tey jubal ñu jigéen ñi wal yawmil aaxiri ak bis pénc ba wa rusulil kiraam ak yonente yu tedd yi wala xadari ak dogal ya allazi dogal yi nga xam ne ne yajuudu dana tabe bil maraami ci sàkku téefam mu nekkat kat na ngeen gëm kon bis penc tamit na ngeen gëmit yonente yi nga xamee ne ñoom la suñu boom yónni na ngeen gëm dogal yàlla yi nga xam ne lépp lu am rek ngeen xam ne suñu boom moo ko dogal waaye nag mu jeexalee allazi yajuudu bil maraam mu nekkat kat boom mooy ki nga xamee ne lépp lu ma bëgg mën sëriñ bi rek mu may ma ndax nee nañ bi muy taalif téere bi dafa yeggoon ci yàlla foo xam daf koo jege woon lool kon juróom-benn yooyu mooy juróom-benn yi nga xamee ne mën na koo tënk na koo tënk fii ci tàmbali nga xam ne lii mooy gëm yàlla gëm yàlla mooy gëm nga gëm ne yàlla lu am gëm malaayka yi gëm téere yi gëm yowmal xiyaam gëm yonente yi gëm dogal yi juróom-benn yooyu mooy gëm yàlla ci ak tënk waaye nag bu nekk da la koy jàngal nag wax la gëm yàlla mooy lii ak lii moo tax mu ne imaanukum seenu gëm bi rabbikum seen borom tasdiixun mooy ngeen dëggal ko bi annahu na ko moom borom bi wujuduhu amam nga xaqiiqun lu dëgg la mu ne kat kon gëm yàlla mooy ngeen gëm ne bokk na ci gëm yàlla nga gëm ne suñu borom kat lu am la mu wér la mu wér la lool nga xam ne suñu borom lu am la nga xam ne nii mu la leeree ne yow mii sa loxo bii lu am la mu wér na noonu suñu borom lu am la ndax dafa am tawhid goo xam ne dañ koy jàngale ci boom xam-xam yu njëkk yi dañuy wax na suñu moom dafa am suñu boom dafa am ñaar fukki melo yoo xam te nii dafa war ci moom nga xam ne ñaar fukki melo yooyu benn mënu jee manqué ndax bu ci manqué rek day mel ni suñu borom matu mu am ñaar fukki melo yoo xam te nii day jomb ci yàlla waaw day mooy jomb ci yàlla nga xam ne benn bu ci manqué rek day mel ni suñu borom suñu borom day day day day day amam gi day des mu am ñaar fukki melo yoo xam te nii nag dafa jomb nga xam ne suñu boom mënu koo am waaw mi ngi mel ni suñu boom mënta am euh, mënta nekk ñaar wala mënta mënta am ay waajur yooyu nga xam ne suñu boom mënu koo am ndax bu ko amee day mel ni matam gi day des daal di andi yoo xam ne nag mën naa am ci man boom mën na moom ñàkk moom lay bëgg a limal nag moo tax mu ne bi njëkk mooy na nga xam ne gëm yàlla lu wér na nga gëm yàlla gëm yàlla lu wér xam ne yàlla lu am la wax woote moom yàlla xadiimun aji jiitu la maa la bu déddi ko ñeel bidaaya ab tàmbalikaay wazu baxaayin boromu des la maa la bu déddi ko ñeel nihaaya ab yamukaay kon bokk na ci nga xam ne yàlla kat moo jiitu lépp te amut fenn fu mu te yàlla mooy des boromu des la te amut fenn fu mu yem wazu xilaafin borom mu wutanteeg laa lil bariyati ñeen mi def yi maa mbooleem seen wa zuuxinan borom mu doylu la bi nafsihi ci boppam jamaha boole na lii ñeen mu ne kat na nga xam ne kat yàlla moo bind mindeef yëpp moom moom mbindeef yëpp moo bind lépp loo mën di gis waaye nag bind googu mu leen di bind wuute ak ñoom la wa zu xilaaf borom mu wuute la lay bariyeet ñeen mbindeef ku wuute ak mbindeef yi waaye nag ku doyloo boppam la moom yàlla mooy ki nga xam ne ku nekk yittewoo nga ak ndimbalam ku nekk yittewoo nga waxtu moom yittewoowut kenn ku doy la boppam mu jeexalee bayit bi jamaa lii mooy yiw yëpp suñu boom booy na ko jox ma ko moom sëriñ bi kon mu mel ni mën nañoo yamani foofu ci suñu jotaayu tey kon ci bint bi nga xam te ni moom lañuy jàngalee gëm yàlla kon dañuy wàcce kàddu yi di ñaan suñu boom mu kàttanal ñu te jéggal ñu suñuy bàkkaar ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak weeru ñu génn ñu baalu ñëpp xaqit den wax kon lépp lu jub rek xam ne yàlla la lu fi dëng ñu xam ne suñu jëm muy xeeb yi la ñu koy jégalu in uridu ila al islah ma sabaxtu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ bi dana sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal